roqisa bismillah na ma roqisa yéla malee fat na di rajuli ñeel góoram raasin ak jigéen kan kay see boo rek ne seen mukallaf mooy mustahaaba ko waxee ndax loolu doonte aji jorngel woo kat jorngel lañ ko wax mooy nga xam ne dafa takkoo deret bi xaadarin ci teew aw safarin wala dox ana lan la ñu yolomalal masxu jawra bin mu masa jawra julli da woo xam julli da woo xam ne dara lee fat na zahiru bitti bi bitti bi dafa am der biir bi mooy kawas mooy leen wala étof bitti bi am der mu sol ko léegi jàppam yàqu fekk ba mu jàppee la ko soloon daan wax charte yi tax mu mun cee masaa léegi muy jàpp soxla ba ak si soxla lu mu raxas ko day tooyal ñaari loxo mag ndox daal ne nii bu bu lay jël fii di ko daal ne nii daal di daal di dem yoon julli daal di kàmbar dégg nga boo xam ne waahiruhu wa baatinuhu da kii sax da daa am na wuute biir bi biir bi am biti lépp dafa am der ay aspect wala ji yedd ah xëy mooy fii la jublu waaye biir bi kay maanaam kii bi dëgg fi ngay dëgg talon bi waaw talon maam kii suñu moom waaw mu am der xam ne parce que bu fekkee ne tissu rek la lu mu dëgg bu dee sobee day kii ci biir tax mën ko mos waaw jawrab mooy lan kawas nit bi jawrab kii nag bu dee kawas loxo nag
Gab.
Gab.
Gab.
gaw Gab.
gaw mooy lan déedéet ci arab offaz offaz offaz offaz bu ko xofaas la xofaas moom mooy kii gardien boobu dugub bi mag loolu xaaf faa alif faa ga am sarda zaay raa bu am pont bismillah dégg nga waxu fi naka noonu sànq jawrab ak sànq xam nga jawrab mën nañ ko tuddee kawas waaye nga am na tuuti wuute est-ce que su dàll yooyu ñuy def ci chambre kii yi nga xam ne waxu fi wala sànq sànq moom lu mu doon est-ce que si possible nga lay am c'est vrai day mais liggéey ñi mooy wuute rek xam nga arab yi ak temps yi day wuute ak sang wala wala fi mu foo doon dafa nekk foo waneen sang tam bilaa xaay ci lu dul digga diggale bi amul lu dox ci seen diggante waaw kaqinin nag lu mel ne ki bënit nga nekk xaw mu ne illal mihnaasa nga yow dama ngi ko sebre espèce éperon yooyu من مصاب بالدبل بلا عائد أي أعلى الجورة الخف
mitmaas mooy.
سبرك ما موي كرون دال ولا ñàkki ñàkki yi far yi ñuy wax.
xam xam ngeen ñàkki de te mo am ñàkki ñu ngi te ñàkki moom bu ñëwee koy liggéey waa fi tëgg yi ñàkki
di ko jot waaw li ñu koy di jàpp ko jàpp.
waaw li ñu koy jàpp ci seen testin waaw éperon bi ñu ne éperon xam ngeen éperon dégg nga ma ne fu ñu tolloo ci indil mi
yow nga day observé dégg nga kooku moom ñàkkee itam amul gravité moom nit na am na ala bu fekkee nekk na ca kaw jawal bi it moom aw wala xof bi jéggal nañ ko ak di tukki dégg nga mu ne bila xaddin wala xaddin wala xadda amul dayo boo ma saa boo ma saa ci sa xof wuy daal ñaar yoon ñetti yoon béy na na ngay koy suñu jàpp nag déedéet kenn waxu ko. mbir nga sopp rek nañu nag àjjuma bi nag suñu ko jàpp ñu naan ko julli ko naan waaye ba tey kon dana ko war a wax nag xam ne bi charte jildin ci charte nag na fekk der dafa am der taxir der bu laab nga xam ne comme bu dee deru mbaam wala fas wala deru médd daa loolu jafe na xanaa ci bi fi ci jamono bi fi man nekk ñuy dem wala ci kaw bu ko tey bu ñu reetee xar dénd ko noonu ñuy tànne kii bi der bi ah bu ci liggéey ay daal waaye der yi ak daal yi tubaab yi indi de moom der yi ay der ko sax deru mbaam xaw ma sax deru xale bi tamit waaw heure bu ñun nag xam nga toujours risaala risaala boobu la am am solo la waaye dafa gàtt muxtasar maanaam gàttaay bi du caagee ni li nga wax dafa ko waaye day wat ci yeneen wax yu bari indi rek bi gën a wóor wala moom bi gën a wóor ci moom am na histoire que ñi nga xam ne ñoo contre loolu dañu posé woon question daal li nga xam ne Najaasi Négus bu Xabas Éthiopie yónni woon na ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam nan la mel fekk dafa ñuul loolu ku ñu Cheikh Chantabi benn moom naar la bu ne Égypte suñu suñu suñu suñu problème la suñu problème bi ñuy wax Sahara est-ce que fu mu bokk ci Maghrib la bokk wala déet foofu saxal nañu ne ci Maghrib la bokk puisque dafa fekk ay awqaaf yoo xam ne dañ koo jagleel waa Maghrib rek moom mu nekk moor boo xam ne ci diggante Sahara ak Mauritanie la te bi mu demee nag mu revendiqué ne moom am na ci xaq ñu ne ko nag am na ci xaq parce que dëkkuloo Maghrib parce que dañ la wax maa war a faas naas xam nga maanaam daal bu Maghrib jeexee ñu des bu ñu ay nit daal di ñu nit ñi ñàkk solo daal di ñu nag temps la ay temps lay doon rek Moyen Âge moom xam nga époque ténébreuse la dégg nga mu ne nag mu ngi bokk ci Maghrib yooyu même bi ñu ko seetee ba olof nooy rek di ko kii la ñu mujj jox nañ ko ci xam nga kooku asan bi ñu rawan nit ci dañu am dimango waaw puis itam dàll yu ñuul yi xam nga dàll yu ñuul sax dañuy si nañ sol ko mais dàll yi na jeex si ñoom yoon na ci la leen doon laaj ba ñu yonente bi salaam bi ñu damoon ci oxot ba ñu kaw wala ba ñu sow ak ban bañ la si kii boo ñu def xaaral ko daal lañ ko mujj noonu. si la dem xamoon ko dégg nga bisimilah. mu ne.
charte jildin.
charte jildin ci charte mu nekk gerte faaxil dem di aji laab xóori sax boo xam ne dañ ko caa ñaaw. wala duñ ko caa kole wala ñu fi fi ñu laxas ko ci rek ba satara tëm suturaal ma xalal farata biir bu farata biir bu nga xam ne war koo raxas ci njaaw ci farata na ko suturaal waaye bu amee lu ci des def ko war a sëñ jàpp raxas tànk bi wa am kana te mu jàpp ni te jàpp ni te taabu ol machi ba tey muy charte yi dox tale dox bi ci sangoo na fekk it muy sangoo xam nga ciy dox sans gêne dégg nga bi taharati maa in mu fekk mu sole woon ko ci laabu ndox boo xam ne kamulat mat na waaye bu fekkee ne dafa raxas benn tànk bi tànk ngay jor bi raxasagul bi daal di sol sang bi soo ko raxasul ci des sol bi du ca kii de waaw ba jàpp mu nag mu jàpp ba àndal sol sol comme la bi la trafuhin ci lu dul taataar na fekk itam jàpp ni bu koy jàpp bëgg a set rek taxul dégg nga pour poussière bi ko tax mu jàpp ak yooyu déedéet na fekk ne boo isyaanin ci lu dul mooy bi lépp si waaw wala kii bi sax sang bi bu mu fekk ne daf koy rafet loo rek waaye du taal la mu fantaisie daal boo isyaanin wala mooy bi lépp si ci wootoon sangu jàmbo nga bëgg a foot ba borom rek daal di koy sol wala dégg nga sang woo xam ne dañu ne fii kenn du fi sol daal la rek nga daal di indi daal kii pour tapage am yooyu daal aw safari yi wala tukkeem nga xam ne dégg nga dafay tukki waaw fala bi saw alayhi al aasi bi safarihi ka abatin wa aaqin lil walidayni da jaam la buy daw du jaam amee wala koo xam ne xale boo xam ne day daw ay waajuram dem yoonam mu lànk féetéeru daal rebelle dem yoonam wala muy rugga mooy ku ko ruut yi kooku it boo raxasee daal woo mu sol de lu ci masa xam naa sax ko ko moom lu muy jàpp sax dëgg yàlla dëgg dëgg yàlla dégg nga mu ni falaa yum saxu deful masa waa sewoon aji yaatu dafa yaram àll bi dafa dafa seere kapsal bi wala joor bi dafa masaade ba mu xarrakoon nag aji xotti ko xadra sulusi xadame mu tolloo sulusu dëggu bi tànk bi lii la sulus bi ba fii maanaam sànq xotti ko ba fii comme xotti ca masaade waaye bi chakkin ba dañoo sikki sàkk ndax mat na sulus doole matu ko yëpp bu ci xotti ko du ca kii de bal doona ko rek wër na daal matu sunu baal ñu ko bu éni tasaqa ñu dem taq na xottiku nag seen diggéewu seen du yë- yëkkatiku nii dafay xottiku noppi tax ci ba tey daal ubbi ko comme sax ni naka noonu aji ubbi ko saxura boo xam dafa ŋàyyi ko waaye ŋàyyi ko bi yaatuwul saxura bu mu daal aw xasala wala mu raxas wa xasala aw xasala de aw xasala te mu raxas rijlayhi ñaari tànk yàpp day wala nasunum farabisahuma mu waddoo li ñoom ñaar mooy ñaari sànni wala ñaari yow bay suma xam la topp mu matal mu yëg farabisahuma suma kàmm la rëjëlan mooy yéen mu de moom kay bu ñu ne sax xasala rijile yi ba noppi Rijla.
wa xasala rijile yi dégg nga mu bu fekkee ne dafa raxas ñaari tànkam ba noppi kay farabisahuma mu sol leen su ma kàmm la topp moo tax li ñu jëlee nag xanaa ñetti tàng la am. waaw mu wax tamit dañ koy am natt sax ah kañ dafa dafa dafa juutal. dafa njëkk a raxas càmmoñ bi. raxasaat ndeyjoor bi xam nga war na raxasaat càmmoñ bi. dafa njëkkee càmmoñ bi ba pare raxas ndeyjoor bi xam nga boo ko defee wa yu aadu al munakkisu dafa war a raxasaat càmmoñ bi. léegi rek bu ko raxasee ñaar yi mu daal di sol jawarab benn bi dellu bi raxasaat càmmoñ bi. dafa ñetti tànk. waaw. bii moom. dégg nga. xanaa bi sama atam war nañ suma kàmmal ndox mu mottali rijëlam beneen tànk fa adxalaha mu daal di koy tàmbali itam ci jawaram fekk soloon ja raxasoon na dee ba sol ko mu naan. day masaa xataa xel ba muy summi al ma bëri ñu waral la xam nga kamaa yi ci Makka bu fekkente ne léegi ah du mën a masaa moom mi nga xam ne dafa armal déedéet mu ngi ci coon sax peut-être dafa wax ne xam nga dafa war a summi waa tànk bi dem bi mu soloon raxasaat tànku càmmoñ bi ñaareelu yoon xam nga léegi kon baamu na li mu jëttoon mu solaat nag daal yi léegi comme mooy fa add xalaat ah xataay xalaat bu dee bu bati mu summee almal buusa ba mu woddoo woon bu njëkk bi te mooy lay joor ba xam loolu kamaar yi nga xam ne foo woddoo woon ci fekk mu ci ñu jàpp bu matagul ndax dafa jëttoon mu jeex mu ne voilà déet di masaat kaw sànni mu xam ne aji arma koo xam ne lam yor lam yor farra loru loofu ko du caa gën contrainte ndax booru koo sol ndax waxoon nañu bu solee xuf daf ko war a xaw dagg bu fi xuf fi mu ci sànni xusi boo xam ne fëkkif na ko ndax mu sànni cee masaat wala sànni cee sànni cee masaat mooy lan mun ci teg mooy lan Tarakil mutaaxirina.
te dara dara du mutaaxir waaw léegi mutaaxiruna ak mutaqaddimuna yi lan moo leen teqale an adami nasir mutaqaddimin.
dama ne kan la ñuy wax mutaaxir ak kan la ñuy wax mutaqaddim
Mutaqaddimun mooy ñi nga xam ne
ak ñi nekk ci ngéem bi ñu nekk rajo ah ñu fekk ci maanaam ñi nekk ci maanaam jege woon imam Malik ak ñi ñëw après ulama yi nga xam ngërum imam Malik ñu nekk ci ñu jege woon ngërëm donc ñu nekkoon ci biir ngéem maanaam nekkoon ak moom dundam mu woon maanaam daal kon imam Malik ci la mutaaxiruna yi tàmbali wala mutaqaddimuna yi ci lañ jëm waaw ci lañ wax.
ñun xanaa ñi nga xam ne c'est-à-dire
ñi nga xam ne cité na ko fii mooy laxam yeeg.
Ah, ñi nga xam ne waaw.
ñu ngi sëg.
ñooñu ñooy lan ñooy mutaqaddimun waaw xam ne nekkoon nañu moom xam nañ.
dañoo wax ne nas waaw.
dañoo wax ne mutaaxiroon yi mu ngi tàmbalee ci xasaal yi jëm suuf ba wàcc mutaqaddimun mooy li ca tàmbali jëm kaw
tàmbalee xasaale jëm ko.
waaw ban ban at à peu près mille cent onze ci arab ci maanaam xijri cinq cent cinq kon foofu la tuuti commencé les modernes les anciens et les modernes ndax am na ñu ci mën a tudd ci ci ci tàmbalee ci ñoom.
ah ci mu taaxiroon nañu.
ñu ci mën waaw ñu tàmm a ñu bari tàmbalee.
ñu tàmbalee ci ñu tàmbalee rek waaw.
Ibn Rushd Ibn Rushd.
waaw Averroès Rushdin après Ghazali la ibn Arabi ibn Arabi al-Qadi Iyad Abdul Malik al-Juwayni sëriñ waxtaan yi kooku moom mën nañ ne ci mutaqaddimoon yi la bokk imam Haramayn mën naa imam Haramayn kon xasaale yi ci mu taxat di mën lañ koy mutaaxiruna yi ah ci lañ koy boole.
sëriñum téere yi fi xam ñëwul fii ndax moom ci ngirum Maalik la ne moom mu ngi woon ci ngirum Shaafi'i dégg nga kon traite bi mooy traite bi mutaaxir wala laabisun bu caabi wala bu war wala du ñu nangu masaa cart ñeel laabisun aji waddoo li mu jar di mas yi ngir bëgg a masaa rek tax ñu ko dem di ko war di solo san wala bu jëwaram kooku day bu jar bi aw wala mu sol ko li yanaama ngir ne nelaw rek mu bëgg a nelaw daal eh, naa ko sol am na habitude du sol kawas bi nelawal yooyu sol kii jaaraw ko foofu nelaw bu yowee du ca du ca musaade wa fi haa mu dawoon.
bu ca mu daw wa fi haa jàkkee fi ci mu dawana ne mu dawana lan la
xadiis xadiis xadiis Muwatta.
Muwatta.
Muwatta. Imaam Maalik.
imam Buxaari ba Muslim.
alors mooy ñaari mois mois mois que ñu mujj nga xam ne moom la ñu gars yi daa waxee surtout ñu mujjee.
directeur l'école dana la war a bàyyi.
imam masjid imam masjid imam masjid mooy maanaam téere bu mag bi.
mu wax quoi ok mu dawana mooy lan wax ba taxi naa recherche naay waay naay naay mooy jumaa
Imaam Maalik.
mooy téere li Imaam Maalik bind muy téere xadis yokk ci ay ma asale masale fiq di ko jàngale pendant ñeent fukki at di ci am xadis yi muy dindi di wëcc ndax doyetuñ ko ñu mujj jàll fi moom aara am yi mujj opinion yi mujj li gën a wér fi moom ñu dajale kuur yooyu leçon yi mu joxe yoon ñëpp yu mujj mooy al mudawwana maanaam al mudawwana la ñu tekki kon waxtaan bi fi nekk léegi moom muwatta bi fi nekk rek mooy bu mujj bi waaw mooy dugal.
waaw mooy bu wér ñaari muwatta rek ñoo ci mujjee kii waaw ñoom lañ ci mujj wér ñoom lañ ci mu ga- gaa jàpp daal moom moo fi des daal yi ci des ne kenn moo def ko bor ci nañ ko moom mu ne kon
mu dawoon.
waaw kan mu daw wana muy lan ñu ngi jógee ci daw wana ñu daw ñu mooy c'est-à-dire hein recueil.
jege ngeen ne kay ak synthèse bi bu ci ne jege na mooy li ñu bind waaw d'accord suñu na baatu wala bi dafa vague ndax lu ne mën nañ ko bind ñu ne rek dañ ko bind
Pour transcrire.
Hein?
Léegi transcrire pour ba tey tascrire.
ba tey déedéet yaxal tey déedéet.
hein lu ñu lu ñu lu ñu noté rek wala lu ñu mentionné loo xam ne dañ ko daf koo wax ay annotation yi mu wax ñu ñu ñu noté ko daal masala yi nga xam daal mujj na koo jàngale nga xam ne lii ci la jàpp ba ni mu fi jógee ñu bind ko dajale ko nag mooy al mu dawal boo ko gisee sharaan ko ñu bari sharaan ko ibnu qasim sharaan ko asad ibnu furaad sharaan ko ashab sharaan ko mahamad ibnu alxasan même moom moom Muwatta la daan jàng rek ñu ngi bokk ci mbirum Abu Hanifa waaye dafa demoon déglu ji Muwatta ci imam Malik bi ñëwee nag bu masaan waxtaane Muwatta bu ko masaan jàng rek kër gépp day fees ba pour bëgg a dégg Malik parce que waa Irak la ñi la leen gën a jaxasoo addis yi daal mu ne kon boo fi a jànge fa ca mu dawoon a fi mu tolloo fi mu nekk sax ñaareel liñ bu ci fin.
ca fin bi waaw kon nag waaw mu ne ah waaw وفيها جاكت نتم دوانا داي ñaareel li bi ci fin bi ngeen waxal fin wu page waaw ci commencement deuxième bi.
en deuxième page ay man maa ngi woon ci page bii nu passé la buñ ñaareel.
bindu ñaareel la kañ waaw kañ maa ngi koy soobee sax mu ne nag ko fiyaa jàng na ci wundu na ni yu këroo def na sib ko dégg nga mooy nelaw gi bu ci nelawee ba kuree si def na parce que boo raxas sang te bu suñu nga raxas sataan wa takraaru boo ak takraar raxas manam wala masa masa di ko masa ko masaawaat rek ci benn yoon nga au lieu nga masa benn yoon nga di ko masaawaat ngir daal lu ci war a takk war a dajak yooyu sib nañ ko waa naka noonu lañ si te tabb orudoo ni yi topp xóot xóota nit fu fa xaw a xóot nga fexe ba dugal fa sa baaraam wala sa wee di wokk ñu ci lañ yooyu di tooyal ba bët la yàqu yàqoot na moom xam masaa ci kaw sang doxus liñ ci cangaay waja ba loolu war na bu fekkee ne nit ki dafa amee cangaay waa sangu ji léegi masaa kii jeex na day dem sangu ji ba set léegi nag ok wa dana yàqu bi xat yi ci xotti comme kasiiram mu bari wa bi nas i ak sara ak ci summiku lu ëpp ak sari li jileen lu ëpp ci tànk bi xaw a summiku dafa dox daal nag nit dëgg ci kileen bi mu yëkkat ci tànkam di dox dégg nga daal bi xaw a summiku ba li ëpp ci tànk bi génn dégg nga nga xam ne li ëpp ci kii bi dafa génn li saaqin dégg nga li saaqi xuf fi yii xam nga peeru xuf bi xam nga xuf bi day kii bottillon bi ñu waxoon day yéeg tuuti xam nga lii yëg fii mooy mooy saax bi mooy peer bi jambe li ëpp ci tànk bi génn na ba donte génn ba ci bi ci génn ba ci kii kii bi xam nga ma ko wax dégg nga mu ne kon waaye lal àq bi bu ca génn testan bi rek fa ñëw de kon du yàqu wa inna saahuma su fekkee daf leen a summi ñoom ñaar ala yeyhi wala mu doon ñaar yi tag loo xam nga waxoon na ci gannaaw doonte sa tànk ci kaw sang la it mu summi benn ba ca kaw aw ahadahuma wala mu summi kenn ka rek baadara na gaaw li les fan yi jëm ci ba gën a ba féete suuf ci raxas kay waaw dégg nga koy daal di summi raxas ko kan mu waalaati dikk na nag ba tey misaal borom téere bi ñu tudd xalil naka noonu toftale bi moom itam bu fekkente ne bof ci farata yi la bokk mooy bu defee bii dal ci teg li ci teg fi saasi dégg nga fi taqdiri xab ada jifaafi udwin muctadilin fi zamani wa makaanin kadalik ni ma ko misaalee woon saasi rek maanaam fi zamani muctadil fàttaliku ngeen ko waaw ak wa insaan maanaam wa shaxsin muctadil masalan fil umri kal muwaalaati wa in nasaa bu fekkee ne summi na rijilan tànk wa asarat te jafe aloxra beneen ba wa daaq te xat ay waxtu waxtu wa ñu ne moo waaye ndax yàlla kon mun fa fii téye mu mihi mi ci bàyyi njàppam dem tiim dégg nga aw masixi wala ba tey dafay masa alhi ci kaw sang wi aw wala moom kay in kasrat dem bari na qiimatuhu valeur sang wi dafa dafa cher trop te wa illaa bu fekkee ne cher musiqa xotteef ko aqwaalun am nañ ci ay wax wax wax wax léegi waa ji dafa summi benn tànk bi waa koo raxas léegi masaafi dafa dafa war a jàpp mu summi aleykum salaam mu summi benn tànk bi raxas ko bi ci def summi summi mu ta ticc waa asudaf lu xalaat te kat jant baa ngi xonq moom léegi mu ne du tegu saan si ji la war a julli moom lay jàppale foofu téye moom yi ndax day tiim kon bàyyi ci sam waaw bàyyi ci sama bu jullee ba noppi nga xam ne ma am na julli julli na ci waxtu. loolu nii mu seet nag bu dee xottiwu saman bu ca dee wacc noona ba abadan bu ko dee summi ñu mën a def aw mas fii ali wala moom kay daf ko war bu raxasee tànk bi dafa war a masaa rek san bi nga xam ne dafa tëj ci tànk bi aw wala moom kay daf koy xotti lu dul in kasarat nem bari na rek xiimatu ko bu fekkee ne sang bi dafa cher daal te alal kon alalam daal lay yàqu bu ko xottee wa illa musiqa bu fekkee ne dafa seet li muy jaar bëri mu xotti ko aqwaal bi ay wax lañ ci xanaa aqwaal bu ñëwoon bu lu ci neex rek. mën naa waaw aqwaal bu ñëwee bu lu ci neex rek mën ko ci waaw fàtte ngeen xawlaal lu ci waxoon
xaw la fàtte ngeen ko alhamdulilah.
ah góore waaye bi adama tilaa yi ala arjaxiyati dana am yéen maanaam suuf si man suuf la waaw léegi ñii nee ngi daal bu fekkee ne daal benn sang yu tëne ci tànkam te waxtu waa ngi bëgg a wéy daal dafa war a tiim ñu ne déedéet du tiim de dafay masaa ci kawam ñu ne leen déedéet du tiim du masaa ci kawam dañuy seet bu fekkee ne sang yi seerul mu xotti ko bu seeree nag bu seeree mu soog a def yooyu ngeen wax mu def lee wala lee ak wàllu ñaata wax lañ ci am ñeenti wax wala ba soppeeku na nas uhu waaw waaw ma ñëw danga ko pare xanaa dégg la ma ñëw rek mbir mi.